association des commerçants et industriels du Sénégal seen bànqaas bi nga xam ne moo nekkee ci Touba Mbacké amal nañ bés boo xam ne dañ doon def ay sensibilisation ci marché Ocass bu Touba mu jëm ci jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus ñu yëkkati lu toll ci ñaari millions ci suñu koppar jënd ci ay masques ay gel daal koy séddale mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkee ci marché bi waaye ñaxaat leen ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax ne jàngoro ji mi ngi ci réew mi. yoo xam te ni moom tey seetlu nañ ko ci marché bi te xam naa ni bàyyiwuñ sax am na ñoo xam te ni walante yoo xam ne woo nañ ma ni ma seen i masque boo xam te ni yaakaar naa benn bu ne mi ngi war a def 12 pièces te am na benn yeneen 4 carton yoo xam ni 72 pièces la war a def bi ñu ko xoolee 720 pièces yoo xam te ni ay sel la yoo xam te ni jënd nañ ko ngir def ko ci eh, sensibilisation bi biñ xoolee li nga xamante ni def nañ ko ci yaakaar naa ci wàllu sensibilisation bi ak nombre xaalis bi nga xamante moom lañ génne ci génne nañ 2 millions yoo xamante ni dañ ko def ngir ci sensibilisation bi rek yi nga xamante xamante ni moom la station bi génne bokkuwut ak nag li engagement communautaire nekk na lool mënta ñàkk ci ñu xeex jële fi li nga xam ne moom moo di mbas mi loolee di xalaatu sous préfet bu ndaam engagement communautaire nag mooy askan wi si seen wàllu bopp ku nekk jël say matukaay tey jii nag waa ACIS ñoom ñoo def lu am solo kenn ñaaxu leen si nag kenn ñaaxu leen si du man maa leen ko wax du médecin chef moo leen ko wax kenn waxu leen ñoom ñoo jël seen initiative xool fi nga xamante ne bii fa la mbas mi toll ñu ne kat nañu tëj seen i boutique ñëw ginnaaw bi ñu euh, nettoyé marché bi ba pare ñu daal di génne seen alal pour joxe ay masque joxe ay gel jàpp naa ne loolu bu ko kuréel yi nga xamante ne bii ñoo nekk si dëkk bi yëpp defee amaana mbas mi tolluwaay bi dina wàññeeku. district sanitaire bu Touba ak commune bi ñoom ñëpp ñëw àndandook waa ACIS bés bi nga xam ne ci lañ doon amal seen sensibilisation bi ñoom ñiit ñu ngi ñaaxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu bàyyi xel ci mbooleem li nga xam ne moom lañ leen digal ci mbas mi ngir ñu koy jëfee. Euh, maa ngi lancé benn appel tam ci ñi nga xamante ne nii xam na xaw nañoo nekk ay ndaw. ñoom jàngoro ji mën na leen a bañ a def dara waaye mën nañ ko wàll koo xamante ne nii ay atam àgg na fenn fi wala yor na yeneen feebar yoo xamante ne nii moom bu jotee ci doomu jàngoro ji doomu jàngoro eh, mën naa dem ba nga xamante ne nii dina ko lor kenn réerewut ni jàngoro ji demee ci dëkk bi fi mu ne nii ndax ñëpp a ngi dégg bët bu set ku ciy déglu rajo wala ngay seetaan tele di dégg nombre de cas yi ni muy yokkoo te ni cas yi ni la cas grave yi yokkoo maanaam ñi nga xamante ni feebar bi dem àgg na ci ñoom foo xam ne nii euh, sori na ci ñoom ba mën na leen a faat. te dafa am benn ruxsa maanaam benn point boo xam ne moo am ci biir dëkk bi te mu bëgg mu denc xew nit ñi mooy feebar bi ay wax la rek amu fi. loolu moo war a deñ feebar bi bu am la ki ci hôpitaux yi dem fa ne damaa bëgg ñu wan ma malade ñi nga xam ne ñoom la affaire bi jàpp bu ñu la ko wanee tey ba nga gis situation ba ñu nekk da nga xam ne feebar bi am na. kon nañ ci góorgóorlu ci feebar bi di takk masque yi di laal sel yi di raxasu ngir lii nga xam ne nii nekk na ci biir dëkk bi mën fee jóg. waa Aziz ñi nga xam ne initiative bi ñoom ñoo ko def nuy ñaan yàlla nag lii nga xam ne Aziz def na ko yeneen kuréel yi ci des yëpp nañu bàyyi xel ci xam ne Aziz wane na aw yoon. mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché Ocass bu Touba bég nañ lool ci jëf ji nga xam ne association des commerçants et industriels du Sénégal bi nekkee ci Touba def nañ ko ñoom nag seen objectif moom moo di xeex jële fi mbas mi ci dëkk bi te nee ñu daañu amal yeneen opération yoo xam ne dañuy taxawal ci mbooleem barab yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi ay raxasookaay képp koy dugg ci marché bi raxasu booy génnit mën a raxasu ba set